السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi nuy seetaan ñu fas yéene ànd ak yéen ci leeral diggante boo xamante ni diggante la bopp àddina sépp war nañ koo xam muy diggante bu rafetoon lool ànd bu yàgg lool ak jëflante goo xamante ni lépp mës a rafet muy diggante sëriñ Ahmadou Mbacke ñu gënoon koo miin ci sëriñ Ahmadou Tindodi moom sëriñ Mouhamadul Moustapha moom Xaadimu Rasuul ak sëriñ Modou Roqeya moom sëriñ Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta Mbacke kon mbokk yi ñu fa yéene ànd ak yéen ci kàddu yu am solo yoo xam ne bàyyeekoo na ci ay kilifa. wér ci seede yu wér yoo xam ne mu ngi jëm ci ñaari jëm yu tedd yi. di andi baat yu néew ci lu bari ci ab tënk lenn ci taxawaayu sëriñ Ahmadu Mbàkke ñu gën koo miin ci sëriñ Ahmad Tindodi. kan moo doonoon sëriñ Ahmadu Tindodi. تبكي الأراضي عليهم كالزمان mi ngi gane aduna ci buqatul mubaaraka bii di pàkku seigne touba bu tedd bii di touba fi la gane aduna wajuram itam moko ko dalal jang ginnaaw bo xamanteni ni jaarale nañ ko itam ci barab yi nga xamanteni ni mom la jaarale doomi soxna muy jang alquran ba wattu ko jang xam-xam ba fa tabarakallah sëñ Modou yóbbu leen gànnaar moom ak sëñ Aliou ak sëñ Modou Roqeyo moom sëñ Modou Mamoun ñu sax fa ab diir ba seenum njàng àgg ñu dellu siwaat ci biir réew mi moo doon kenn ci njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha di kenn koo xamante ni it histoire du ko fàtte ci ay taxawaayam di koo xamante ni nit makarimul axlaq da koy soxla woo waxtu wu ci nekk ci jikko yu rafet yu mu làmboo woon di koo xamante ni itam ak bokk da koy soxla waxtu wu ci nekk ci taxawaay yoo xamante ni doon na ko taxaw ci dundal ak bokk هق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات moom nag jaamu yàlla la bu nangu ak njaam ab jullit la woon itam bu rafetal ak jullitam taalibeb sëñ Tuuba la woon it bu ko gëm te doyloo ko nit ku yéene ñëpp jàmm la nit ku woyof te mën muñ nit ku uh, yaatu te tabe nit ku lewet te gore lool nit ku dégg ndigal di koo xamante ni nii ku musa bañ ku néewal doole nit ku musa bañ itam ku toroxal as ci kanamam ci barab boobu yi am suñ mbokki alpulaar yi ñoo ñuy def di màngaan ñëw foofu ci Tindodi waaye ñëw ci borom dëkk ba nag di yëglu sëñ Ahmad Tindodi fekk itam soxnaam daa am gone ba fa dikkee mu ñëw ci sëñ bi di ko yëglu ne ko dama nekk ci sa biiru njaboot màng si fi waaye soxna soxna daa am doom bi sàngam Ya ma di itam di yeglu ni maangi fi di wala ñaan waye ci bisub tuddu ba Ahmad ay wutum xar yeb ko ci otoom dem fekk ko fofé mu nek ci mang tuddal ko dom ji te kenn ku nek xamna ni al li ñu manki mom am am tuddu bokku ca waaye loolu fay tektale ak bax rek ci ni kep ku mu gis seen tuut ci yow dara te japp na ni mo la ko mo la wara defal diggante tuddi doom ak fas ab sëy ak taxawu ko fi bàyyi ko loolu def na ci loo xamante ni nii du ko fàtte mukk diggante itam dimbali it ak taxawu ko soo amee jafe-jafe ñoom itam fa tabaarakallah يا لهف نفسي على فرض الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات كان موي سري مود رقيا موم سري مود مامون موم مام شيخ أنت مباكي مثل العشي والجن والخدود sëñ Sidi Moxtaar def ni moon sëñ Tuubaa bi mu liggéeyee ba ñëw euh, Daaru Salaam la la la la wàccee bagaasam bi mu ñëwee Daaru Salaam la wàccee bagaasam daal ma waaw boo boo safoon dugub ci àll ba indi ko ci kër gi def ko asay sibaar sibaar mooy eh, takki dugub yooyu ñuy róofale mu nekk bu mag ñaari takk dugub ngay róofale mu nekk duubal mu ne ma boo ko safee ci àll ba dikk teg ko ci barab mu am fa ñetti fan ginaar yee cof ko gës ko def ko lu ne nga soog koo jël bojj ko bu asamaan sébbee loo iñaan iñaan dugub dana fa yaay ndax fepp ya faratoon bu bu bu asamaan sébbee mu sax mu ne ma maam Cheikh noonu la mel ci yoon wi ne ma ne ma wàcc ga fa sëñ Tuubaa wàcce woon bagaasam bu mu jógee ci géej gi ak dolli ko la ci ñoom goo xam ne suba guñ xëyee danañ gis lu ko firnde ba ba àdduna di tukki sëñ Sidi Muxtaar am wax sëñ Modou Rokhaya eh, mu nekkoon koo xam ni mën nañu wax ni modèle la woon ndax dafa nekkoon nit ku jafe ndax li gën a jafe ci àdduna ñoo ngi koy waxtaane léegi rek am barke am xam-xam am mbooloo nit ñi bëgg la ba noppi loolu yëgoo ci dara te benn garaat bu ci nekk ab garaat la koo seen muy daw bu sañoon am mbooloo koo seen mu daw bu sañoon nit ñi bëgg ko koo seen muy daw bu sañoon am dara koo seen muy daw bu sañoon am barke ndax ndax dootu wuti dara moom nag yëpp yàlla da ko defaloon garab goo daggeb doom boo ko yéyee doom ba lay saf boo doo dagg mukk ab pom lekk ko mu lay saf kaani doo dagg mukk kaani lekk ko mu lay saf darkase wala mu la saf leneen kon Cheikh Anta maam Cheikh Anta sëñ Modou ya rek euh, la la la mën a saf te sëñ Modou ya këltu yooyu ma wax ci moom léegi yooyu naka jekk moom laa xam ci moom te xam naa ne bari na ñu mel ne man itam ñoo xam ne moom lañ xam ci moom. dafa jàppoon ne moom moo ne mooy mooy soldaarub nit ñi waxuma soldaarub waa Daaru Salaam waaye dafa jàppe woon boppam soldaarub sëñ Touba lu ñu tudd di tudd sëñ Touba rek mu nekk sab soldaar mooy boo fexee ba nga xam ne ñiy joxe addiya lu ñu bari bari bari bari ñaare néew na ñu ni diw jóge na ci kër sàngam dem yët sëriñ bi nàngam moo la ëppale néew na ndax foo teg sab tànk ren boo liggéey nga teg sab tànk fu ko raw aw fit foofu la mën a tàmbalee yam fi bi ko ñaareel mooy sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw tànki kanam la am tànki kanam yooyu daaru salaam fexe nañ ñoom ba nga xam ne bokk nañ ci tànk kanam yi fe fesal nañ tànk kanam yi ndax niñ ko fesalee mooy bu fekkee ne joxe nga téeméer ren jii bu nee nga joxe ñaar téeméer boo joxee ñaar téeméer bu nee nga joxe ñett boo joxee ñett bu nee nga joxe dàngam kaanu ibaadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati diggante ñaari jëmm yi nag muy sëriñ Modou Rokhaya ak sëriñ Ahmad Tindodi diggante la woon boo xam ne rafetoon na lool ñu daan jëflante te séqoon lu yaatu ci fànn yu bari loole di kàddu yu seede yoo xamante nii am na kilifa yu bari yoo xam ni wax nañ ci lu wér خانوا سراعا لإحياء الجنات ñoo yi nga xamante ne ni ñoo fi bokkoon nekk benn ci sëñ Modou Roqe moom yi nekkoon fii benn ci sëriñ Modou Boussa Dieng yooyu fi jaaroon benn yi itam ci Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir yoo nga xamante ne ni jaar nañ daaru naim ñu naan abrara la fi nekkoon fa ak ñenn ci njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha nekkoon fa itam ak ñenn ci bokk yi da gis relation yu dëgër yoo xamante ne ni dox na seen diggante diggam ak uh, sëñ Modou Rokhaya mii di taawub sëñ moodu Mamoun sëñ Modou Sall lañ ko jox moo ko jàngal moo ko yar mu jaxasoo ak njaboot gi bi ñuy dem gànnaar itam moom ak sëriñ Ahmad Tindo du ñoo ànd dem ak sëriñ Aliou mu mel ni ay nit su fekkee ne dañoo bokk fu ñu wattoo xam-xam jaxasoo ci diir bu yàgg seeni jikko day daal di mën a niroo ci lu bari seenub ànd itam day daal di gën a rafet ndax kenn ku nekk dangay xam wàccuwaay bi nga xamante ne ni moom la sa moroom am ci yow loolu taxoon na cër yi nga xamante ni ñoom moom lañ doon séddante doon cër yu am solo yoo xamante ni nii fi mu toll nii jamono soxla na ko ndax fi mu toll nii boo gisee ñàkk a déggoo di yu bari wala ñàkk bokk xalaat wala ñàkk bokk ay principe ñàkk bokk fu ñu yaroo ci la te mag ñi suñu borom dimbali loon na leen ba ñi mag ci seen njaboot ñoo bokk benn barab buñ ñu yaroo bi ñu dellu siwaatee itam jëwriñu sëñ Tuubaa jooju yi nga xamante ne ni moo leen yoroon xiirtal leen ci boppam nàmpatal leen ci bopam xamni yar taqoo la laaj mun leen kay leen jang ma man ginaaw bo xamanteni yeer nañ li ci téré yi ñu taqoo ak mom ci ak jaxaso gu wér ba mbollem jikko yi nga xamanteni ni jikko sang la sun borom dotti ko ci ñom ci jikko yo xamanteni ni moy makarimul akhlaq ci la yalla don tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam te mo taxone yonent bi ñew jamono defaron seen seni seni ba fo leen mëna seen don te xamoo leen sax da nga leen xemeem lool jaxaso ak ñom da nga nan ki rek la doon wër mom yeex na ma ci mom ko ci dem kërëm itam naw ko ci wuuf goo xamante ni ni wuuf nañ ko seen seen njaboot wuuf ko itam njaboot ki nga xamante ni moom na leen mag ñi bàyyeeloon ci bàyyee leen lépp luñ am te lu ñu yor buñ ko soxlaa ñu bàyyee ko ak ñoom baa fudulan bi zikrillahi xaalixihim fannawma fi leyli baa bi sëriñ Ahmadou Tindodi bi mu fi bàyyeekoo wuy ji suñu borom sëriñ Cheikh Aliou Mbacke mi moom moo ko fi nekkal nekk fi xalifaam ñu koy ñaanal mu gën a yàgg lool te gën a wér lépp lu sëriñ Ahmadou Tindodi naaloon rek yóbbu na ko fu gën a kawe ci ay réalisation yu am solo yoo xam ni def na ko buñ ci jëlee dëkk bi nga xam ne moom moo Tindodi rek da ciy doy firnde ci jëf yi nga xamante ni amal na ko ci dëkk bi ba gën koo suqali bu baax a baax.

Thank you. تجفو المضاجع في ليل جنوبه ناسين سلمى وليلى بالبشارات فحيثما برست ليلى بباجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعاته سري مودو رقية بمشو بايكو kii nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh Anta Mbacke moom moo ko wuutu wéyale liggéey bi nga xamante nii moom la fi bàyyi woon liggéey boobu nag fépp fu ko sëriñ bi tegoon muy sëriñ Modou Rokhaya sëriñ Cheikh Anta yóbbu na ko fu gën a kawe di jëf ju wér joo xamante nii lees mën a teg bët la njabootug sëriñ tubaa gi nag seeni diggante rafetoon na lool te it rataxoon na lool te it kilifa yi saa su ne ñu ngi doon suuxat bu baax a baax lépp lu jëm ci mbokk gi ngir gën koo dëgëral mu nekk nag jëf joo xam ni ak diggante yoo xam ne lees war di leeral la ndax lees war a xam la ba mën cee jàngat bu baax a baax ba mën a sàmmaat bu baax ndono yi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon هوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات